wala bu bis bu mel ni ñëwee bisu it mu ñëw siyaare si la ak préfet ak sous-préfet ñu ànd ak njabootam gi yëpp ñu ñëw siyaare si CRD bi noonu noonu la ko defee di di ñëwoon dana ñëw la si gannaaw siyaare bi ak feddali taalibe gi ak kóllëre gi ci ndigal li waaw naa mu leeral la liggéey bi rek fi ñu ci toll ci waataayu yëpp rek mbiram màggal gi ak mbiram dëkk bi ñaari ndox yëpp ndoxam naan mi ak ndoxam euh, taw mi xam naa moom dana dana la ko leeral lenn lu ci nekk tàmbali nañ ko ñaari weer yëpp comme nim la ko koy rek compte ma dina la ko leerale ñu ngi ciy dox kon gouverneur bisimilah vous avez la parole. ñu ngi tàmbali kàddu rek di sant suñu borom bu baax di jëlu ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal nag xalif général des Mourides sëñ Mountakha Bachir Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér. di nuyu ak ziar quand même suñu sëñ Bass Abdou Khadre si su suñu tur waaye turu nag kilifa ñu fi yebal ndaxte bés bu mel nii dañuy sas ñu ñëw ci euh, këlu diine yi indi leen seenum ndokkeel ak seenum waaye bii tamit naam am na nguur gu bees mais ñu santuñu tamit ñu jël matuwaay yëpp ba fepp foo xam ne ñoom mënuñ faa teew rek ñu teewaleen donc tànk yooyu mooy euh, suñuy kilifa ñooñu ñooñu yebal muy président de la république Bassirou Diomaye fay muy le premier ministre Ousmane Sonko ak mu gouvernement bi yëpp euh, li si jiit rek mooy di la ziar bu baax Mbàkke di la ndokkale ci bës bi nga xam ne xam nañ ne bës bu màgg la te képp koo xam ne rek jullit nga am na jàngat boo ci mën a def muy su dee ku jullit li nga ciy njëkk a jàng rek mooy ngëm-ngëm ndax fois ndax suñu maam Ibrahima foog naa nee ngëm-ngëm rek moo taxoon euh, mu jëloon doomam pour jébal ko suñu borom waaye ñu gis tamit a ah, soxnaam muy soxna soo xam tamit tey nangul déggal borom këram su dee doom ji tamit foog naa ne doom ji déggal nay waajuram ndax nangul na ko li nga xam ne moom la ko suñu borom san te loolu day tax rek ñu delluwaat ci nga xam ne moom la ñu war a njaboot gi war a war a nekkee ginnaaw loolu nag ci bës bi nga xam ne mooy euh, bés bu màgg bi ah kilifa yi waxoon ñu tamit su ñëwee ñu sàkku rek ay ay ñaan ci réew mi suñu borom def si def si jàmm waaye ñaan leen tamit ndax nguur gu bees foog naa ne ñaan moo ci jiitu ba lépp loo xam ne yéene la ak mëbët suñu borom may leen également kattan guñ ko mun a égale te mu nekk nag njëriñu askan bi yëpp ah lii nga xam ne nag moom lañ woote muy ay principe yoo xam ne noonu lañ ko bëgg a doxale ñu wax jub jubal jubanti ak liggéey temps yi ñu toftal ci liggéey ah te lool xam naa li ñu wax léegi rek loolu moom dëppoo naag diine ndax suñu nee jub jubal moom foo naa ne diine euh, loolu la loolu la woote ah ñuy gisit ne ah, askan wi ñu ngi ciy dugal seen loxo ci wàllu participation citoyenne euh, fan yi ñu génn rek foo naa ne misaal bi ñu wootee wàllu nettoiement yaakaar naa ne région bu jur Diourbel euh, desul ginnaaw rawatina fii nga xam ne mooy commune u Touba Mosquée ndax gis nañ askan wi génn nañ ànd kook association mais ànd ko également ak commune Touba Mosquée nettoyer mais surtout euh, def loo xam ne waajtaay la ci mbënn mi yaakaar naa ne loolu mooy jëmale mooy jëmale réew kanam maanaam bañ a xaar lépp rek ci nguur ku nekk euh, li nga xam ne foofu nga wara a féet nga def ko ci te loolu moom Touba loolu lañ ko mos a xamee donc loolu yaakaar naa ne Euh, gis nañ ne doxalin boobu moom dañ fee fekk dèjà donc njabootu Touba ñoom ñu ne ci kon yaakaar naa ne loolu amuñ ci benn xel ñaar ci participation citoyenne bi jëmal kanam naam nag am na ci loo xam ne état état loo warlu donc lu jëm ci wàllu kaaraange wala également ci wàllu mbënn mi muy nekk investissement yu diis ah am nañ ci yaakaar nag ndax dèjà chantier yañ tàmbale am desutu lu bari te ren it foo naa ne yàggul. muy euh, génie militaire bëgg nañ également ñu dugal seen loxo ci waajtaayu màggal gi surtout lu ñuy toppatoo bassin yi ñëw nañ fi fan yee passé def benn mission de prospection pour xool ànd ko kilifa yi fan nañ war a mën a liggéey pour que tamit ñu gën a waajal nawet bi néew nag mënul am waaye nañ fexe ba waajal ko ba su amee tamit ñu mun ko mun koo dëkku leneen moom foog naa ne xam nga ko muy wàllu ndox naan ñu ngi ci def ay jéego ministère bi yëg na ko ñu ngi ci xalaat nan la ñuy def pour jëlee ndox mu ne mi dugal ko fii ci ci dëkk bu sedd bi donc loolu foog ne projet la boo xam ne kilifa yu bees yi euh, am nañ cër boo xam ne daal ci wàllu ndox muy ndoxu naan wala ci wàllu inondation tubaa dina ci am wàllu rey xam nañ ko li ci des rek mooy sàkku ñaan ba mëbët yooyu nga xam ne moom la kilifa yi am jëmale ko ci dëkk bu sell bi suñ borom may leen kàttan ak mën-mën koo xam ne dañ ko mën a mën a mottali su ko defee comme euh, problème moom soo koy régler rek dangay ngay réglé leen it mooma féeti ginnaaw nga nekk ci leneen te yaakaar naa ne ñoom jéego boobu lañu bëgg bëgg indi te incha allah rabbi lépp loo xam tamit coordination li ci wàllu région Diourbel dinañ ko ànd ak kilifa yi nga xam moom moo nekk fii ci Touba ànd ko également commune Touba Mosquée ak sous bu bu Ndaam ah, ci waajtaayu màggal moom xam naa ne ñi ngi ci donc yaakaar naa ne ñaari réunion yi jeex na li des rek après dañ ci waxtaan ni ko bëggee rek après ñu xool bés ba gën a rafet def CRD ba njaareem àndaat kook yéen incha allah rabbi euh, ba suñu borom yóbbu ñu sax jàmm ñu def màggal goo xam ne également ah, mu nekk màggal gu mucc ayib di ñaan nag suñu borom yu ñu fekk jàmm incha allah rabbi donc kàddu yooyu daal lañ bëggoon yëkkati di la ñaanal nag tamit ndaxte euh, yéen wi nga xam ne moom nga yore pour liggéey ko sa maam it suñu borom may la kattan goo ko mën a mottali incha allah rabbi ah, di am mbégte bu baax nag di fi ñëw toujours te gis nañ tamit Euh, jàppale bi si zaahir ak si baatin loolu moom mun gis nañ ko bu baax a baax a baax di féddaliwaat nag suñu coloré bopp mais également coloré njaboot gi nga xam ne ñoo féete Mbàkke Touba du ñu liggéeyal ñu ngi leen koy dénkaat bu baax muy préfet bu Mbàkke ak su préfet bu Ndaam naam ñi ngi ñaareem ñun Jurbel waaye ñoom ñoo ñu gën a sës fii Touba te umpente wuñu ci wàllu liggéey bi mais tamit ñu ngi leen koy dénkaat bu baax rek di sàkku ngeen ñaanal leen ñoom it mission bi nga xam ne moom la kilifa yi am teg ko seen loxo mu bañ a yàqu te may leen ci ndam loo xam ne day nekk njëriñu dëkk bi am nekk njëriñu taalib yooyu daal moom kàddu ñu bëggoon yëkkati si turu suñuy kilifa yi nga xam ne ñooñu fi yebal di am toujours nag mbégte di ñëw fii teewal teewal incha allah rabbi donc asalaamaaleykum taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala euh, de la région Diourbel di euh, Ibrahima Fall ñu ngi lay nuyu baax mmh, teg bi ci sa loxo. yaag mboolem délégation bi nga àndal bépp tàmbalee ko ci préfet bu Mbakke Xaadim An ak suuf préfet bu Ndaam ak sëñ Abdul Ahad Kam mi nga xam ne moo leen dalal ngeen ànd ak moom ci dëkk bi. dina yóbbante nuyoo ci seen kiilifa yi nga xam ne ñoo leen fi yebal ci bis bii nga xam ne ni nga ko waxee léegi rek jiitu nga ci. bis la bu màgg ci lislaam bis la boo xam ne sunna la ndax ci. sunna la ci ci ci diine lislaam suñ borom digaloon ko euh, sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inni ara fi ma anni azbahuka fanzur fanzur ma satara xaali yaa bati fa alma tuma satajiduni incha allah min as-sabirin bisu tabaski kon bis la boo xam boom ci salaa lislaam di bisu boo xam ne wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaam yàlla gu gën a màgg defal ko lim digle ci bisu Tabaski moo tax bis day bis bu diis ku ci agsi rek fitna ji nit ñi àndal ak kër kër jéeg yitti jéeg yëpp da ngay xam ne di saayu cosaan la moo ko indi kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di sant di gërëm ci euh, ni ngeen ko baaxoo def ngeen defe ko bàyyi ko ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanam yàgg fi tànd gër te bu ngeen fa yemoon itam doon na sëkk waaye ndegam yàlla def na ñuy dox seen digg moom moo tax ngeen jóge fu mu yebalaat leen fi nga ñëw fi ñu ngi leen di sant di rafetlu taxawaay yooyu nga xam ne ak jéego yooyu nga xam ne def ngeen ko te suñu bilaar ke ñëwoon na fi ay bis yu weesu ba leeral ma loolu lépp ñu rafetlu bu baax di ñaan niñ ko yaakaar rek niñ ko dëgmale rek yàlla suñu borom dimbali ci kàttanam ba nu mu daa mel rek mu weesu ko te gëm naa ne am ndax màggal moom bisu Sëriñ Tuubaa la te moo ko faggul boppam sëñ Saliou Mbacke daan na ci wax kaddu yu am solo daa wax ne màggal moom lu yomb organisé ndax nee na eh, murit bu ne dana fex ba dana ba këram jekk loolooy màggal gi kon nag loolu moom day ñaan ñu àgg jam jàmm yéen itam taxawaay bi yéen ci daa taxaw ci seen wàllu bopp xam nañ ko kon ñu ngi leen ci sant ci li weesu te ñaan yàlla rek màggal gi ñu tam itam ndax ci biir nawet lay tolloon ñëpp xam nañ fi mu toll ndax daaw la 5 septembre la woon. fekkoon nawet bi di cate waaye ren ci digg ba la nekk kon wàllu mbënd mi ak yooyu moom faaw ñu bàyyi ko xel waaye comme yàlla def na yéen a ngi ci rek ci jéeg yooyu ngeen ci def seen bilaar ka la na ko kon ñu ñaan lépp rek yàlla doon loo xam ne day jëriñ ñi dëkk ci dëkk bi ba ñu tàggoog ndox tàggoog euh, aw mar tàggoog ndox ndox ndox ndox mi nga xam ne mooy di sonn ci yoon yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu